mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah gannaaw bi nga xamante ni dugg nañ ci biir dëkk bu tedd gi tey ñu ngi ci kër gi nga xamante ni macha allah dañuy sant yàlla bu baax a baax di kër goo xam ne boo fi duggee rek yëg-yëg bi di nga ko am muy uh, këru suñu maam ju baax jooju sëriñ Babacar Sy Serigne Babacar Sy ci këram la ñu nekk fii mooy salon bi nga xamante ni fii la doon nekk waaye tamit uh, bi mu ñu dëddoo suñu maam ju tedd jooju noonu sëriñ Abdoul Aziz Sy Al moo fi toog. moo nekk ci kër gi fii ci salle bi ñu nekk nii fi ñu leen di wan ah, fii la doon dalalee ay ganam fii la doon recevoir ay gan muy ci salle bi ak salle bi nga xam moo nekk ci suuf fii ci kërub Serigne Babacar Sy yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci ay barkeem moom it Al Amin nekkoon fi tamit di dalal gan yi fii ci salle bu tedd bii nii salle bii nga xamante ni xëy na buñ la ko waxee yow mi toog sa kër sax di nga am benn yëg-yëg euh, saalu Serigne Babacar Sy saalu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin yàlla nañu leen ñu yàlla fayal yàlla na yàlla yokk seen les tâches seen i barke kon ñu am kenn ku ñu waxtaane rek mu gindi ñu fii ci kër gi boo xoolee sax ci image kër yi yi nga xamante ni euh, góor gi mi ngi leen di koy wan am na ay réflexion mais dañ ko defar rek waaye kër gi ba tey jëmm jamu yoroon moom la yor ba tey euh, ñi ngay kenn koo xam mi ngi bokk membre COSCAS ñoom itamit yàlla na leen borom bi fay ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéeyal suñu maam ju tedd ji El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu na ñu ko yàlla fayal alors euh, tur bi euh, sëñ bi. man la Oustaz Youssoufa Pouy di wax dëgg yàlla kontaan lool ci seen mbir mi ngeen def di leen ñaanal ci jotaay bu gàtta bi day ñaanal sama bopp. ndax bërëb bii bërëbu ñaan la hmm. waaw ñun nag yàlla dafa ñëw def taalibe seex hmm. balaa ñëw nekk koskaas hmm. domaine boobu am nañu ko moom waaye baabu Babacar dañ koy tàntal Alaaji yi dañ koy tàntal ci domaine boobu ñun it ñu ngi ci lënge yëngatu ci wàllu média. ci wàllu média alors tey ñu ngi ñu ngi ci kër gu tedd gi euh, chambre à coucher mi ngi ne ah góor gi wan ma lool chambre à coucher bi nga xamante nii sëñ bu mag gi sëñ bu tedd bi fa la nekk après incha allah dinañ ko xool alors mën nga ñu wax tey ci taarixu kër gi sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu moo fi nekkoon après bi mu ñu dëddoo ki nga xamante ni moom mooy ku baax ki ku tedd gi al amin nekkoon ci biir kër gi mën nga ñu ci waaw li ma ciy wax lu tuuti la sëriñ Babacar Sy yàlla dafa dogal mu nga juddoo Ndar dem nañu ba kër ga numéro 42 tabaarakallahu li ci lu mu ci taalif yëpp ci arab bu set te leer nañ kenn xamul nu mu mel ci yar ak teggin ci tarbiya waaye dafa feeñal kii di alxaaji Malick ndax alxaaji Malick moo jur Serigne Babacar moo choisiroon choisirul woon Tiwaawoon ndax xalil ya odia wanzila bi Tiwaawuni ku ne xam na ko waaye yàlla indi ko fi ci firi kaamilu yàlla bi alquran jaar fu mu jaar fa tabaarakallaahu ba ñoom Serigne Babacar si ba mu wax alxaaji Malick da ko bëgg da ko ne ñaari koy duñu bokk mbalk asawraani asairaani laa yabitaani fii man bitin waaxe mu ne ko nu may def bàyyi mu ne ko nga sori ma mu ne ko kon tee ma daw ndar mu ne ko ndar dey dafa maa sori ba mu ëpp te yenn saay ma soxla la mu ne kon tee ma dem Louga mu ne Louga am na nitu yàlla ba fa nekk te bëgguma ngeen jote mu ne kon tee ma dem Thiès mu ne Thiès daa jege Tiwaawoon ba mu ëpp te bëgguma lee maanaam jege boobu neexuma mu ne ko kon tee ma dem dakaar mu ne ko Dakar dey noppee gu ma ca leer ga ndax maa ngi ci liggéey pour salaatul fatiha leer ga dugg fa mu ne ko léegi kon tee ma dem Rufisque mu ne ko Tëngéej baax na demal foofu ci làmmiñu al amin mi ngeen di laaj sëriñ Abdou al amin daanaka mooy sëriñ Babacar maanaam moo dox mission sëriñ Babacar ba mu jeex ndax ba muy am 16 la ko sëriñ Babacar jox lu muy doon def ko porte parole def ko léppam al amin noonu nag dundam dafa yéex a taalif téere ba téereem bu mu taalif ba ñu koy jaay fii ma ma maay premier élément bi ko jënd ñu tuddee ko alfayar dama koy yér du ma doyal ku bëgg a xam al amin dëgg téere boobu da ko war a am nga garder ko bu ko defee kër gii dafa am nu muy doxee ñun domaine bu ñuy waxee mooy alxaaji Malick euh, dund bu mu dund dafa sikar allah allah ba yàlla may ko 66 ans mooy dund ñu génne ko ci allah Serigne Babacar 72 ans man dama ne gars yi boo bëggee alal nga bind maalan wala maalun mooy 72 boo bindee banque 72 la te loolu mooy dund Serigne Babacar Serigne Babacar nag ba muy am xilaafa bi boobu Sidi Ahmed mooy magam mais war naa dem ger ga Serigne Babacar si yàlla dimbali ko Sidi Ahmed ne ko di du ma ñëw du ma dellusiwaat waaye ak lu mun a xew rek la ne ci man danga fees bay tuuru waaye am na fooy sotti waaye man Sidi Ahmed oo ma fu may sotti la ne ci man nag yaa koy gàdduwaale ba Serigne Babacar gàddoo loolu nag xilaafam rabbatloo ak xilaafa allah ji man suur ba lu ñu rawantee sorewul xilaafa yi itam alaaji abdu maam daba ak bu alaaji abib dafa ràbbante noonu la xilaafa yi di doxante waaye ci ginnaaw alxaaji maalik sëriñ Babacar 37 ans boobu 37 ans la am ci alaa yow muhu yow mu sulasa bi mu amee 37 ans sëriñ Babacar ba ñu xamee ne moo doon alaaji maalik neexul woon ñu bëri ndax dafa am ñoo xam ne bëgg nañu martaba te seen cër yeggu fa waaye sëriñ Babacar dafa ne 16 bi benn 16 la bu dee 16 doona la man yën jël naa ko bu yàgg parce que ñooñu kaw ak ñoñu suuf ñoo ma choisir dañuy wax ni li ci Serigne Babacar bul wax sax sa aajo mais yàlla da koo defal wali yu kunus la te wali yu kunus dañuy am martaba boo xamante ne dañuy yantaqiluna min hayatin ila hayatin dañuy toxu rek mais dañuy dund dund maanaam lu ñu doon jëriñ ca ba ñuy dund moo maanaam bu ñu génnee àddina lañuy ñuy jëriñ moo koy ëpp ni ngeen doon nekkee moom fii ci biir kër gi waaw niñ doon nekk niñ doon nekkee ñooñu am na domaine la boo xam ne am na ñu ko gën a xam léegi présenté ñu mais buñ daan ñëw fii léegi présenté ñu fii ci Al lu ma ci man wax naa ko góor gi man ne ko man dem naa bëti àddina bi am na gudd naa fa tànk hmm. mais plan bu mel ne plan Serigne Babacar bi gisaguma ko ak plan bu mel ne plan man Mansour hmm. borom daara ji loolu laa loolu laa bëgg nag nga ñëw si plan gisaguma ko ah. léegi euh, daa mel ne fa tabarakallahu loolu moo tax sax lii am waaye su euh, fan yii yëpp ñu ngi fi waaye dund al amin pour ñu résumer ko rek téere boobu mu taalif mu tuddee ko alfayaat daanaka wax na ci xayaatul awliyaa yi ak li ci am yëpp ci walla ñu war a ñu ci wàllu tariqa bi te am na ñu xamam bu wér ne suñu jumaa al amin moo ko ubbi te ñaata jumaa la ubbi suñu jumaa ñun waambul bokk na ci jumaa yi mu ubbi 2004 lam fa wax yëpp suñu kanam la nee na fa tabarakallahu anta min nataay ji amalina dafa am ku doon wax ci côté arabe mu xamal ko ne yow suñu euh, ci suñu kii nga bokk ci suñu résultat wu liggéey nga bokk ndax ku fi allah ji jàngalul kala jàngal moo ko jàngal wala ka jàngal ko moo lay jàngal loolu la yàlla def ci kër gi waaye histoire kër gi ñun ndaw nañu ci pour wax ci waaye soixante-cinq euh, cinquante-sept la Serigne Babacar Sy génn àddina fa tabarakallahu mu tombeek altine mu ànd ak maamam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bis ba ba mu génnee àddina Serigne Cheikh Al Maktoum dafa def benn xikma bu am solo parce que Serigne Cheikh dafa ñëw fekk mbooloo mi fees del ci Tiwaawan moo xam ne bu ñu génnee Serigne Babacar euh, bu boobaa du ñu am fu ñuy jaar ba rob ko ci ci rawdam parce que rawdu bi histoire moo ko jur léegi nag nan la ñuy def ba génne ko mais dafa nax nit ñi jël benn kees jaarale ko fa ma koy jaaral pour nit ñi jàpp ne Serigne Babacar fa lay jaar waaye ñu taal di teg Serigne Babacar jullee ko daal di koy yóbbu xam nga kan moo ko jullee taalibeem ba muy ko ku ma wóolu woon da ko daan jiitaloo di ko doxloo mission ñu koy tuddee Moussa Niang Serigne Moussa Niang waaw bu ko defee nag xam naa dañuy gàttal rek ndax lu la betti mun la da ngeen ñëw betti waaye ñu ngi jéggalu ñëpp di jéggalu moo nekkoon chambre waaw Serigne Abdou Euh, Serigne Al Amin su daan jógee euh, jumaa ja par ajuma bu ñëwee ba dal fii dalal ay njaboot gi waxtaan ak ñoom buy dugg port bii lay jaare daawul jaare fii mukk fii la daan duggee ci loolu dund nañ ko ak asto bu ko defee nag ñu ngi jéggalu ndax wax ci nitu yàlla yi. Euh, dafa ne sax yaay am yoo xam yaa ngi koy tënk. <laughs> wallaahi waaw parce que dafa am nu mu demee wax ci nitu yàlla dañ ciy lot waaw waaw jërëjëf.